riwal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bila salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi si fi seen site internet bi di 24 actu yi comme ni ñu ko baaxoo di ànd ak yéen saa su nekk ci naafilay weer koor bi tey nag ñu di ko ci guddik juróom-ñeental gi ñeent rakaan lay doon rakaan bu ci nekk fatiha benn yoon tabat yada ñett yoon qul huwallahu ahad benn yoon ñu bamtuwaat ko ñeent rakaan lay nekk rakaan bu ci nekk fatiha benn yoon tabat yada ñett yoon qul huwallahu ahad benn yoon ñu di ko leen ci waxtu yi nga